ndax ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ginnaaw bu mu indee suñ indee suñ bi Touba boo ci fukki buntu kër matug ko ndax sëñ bi bëggu dalaa wax ne damaa bëgg ba bala faa mbooloo maa bari ma jiitu fa ba duñ ba duñ mën a yàq dëkk bi boo Touba matugul fukki fukki kër tey wax ne ne Touba mooy dëkk bi ëpp ay nit ci Sénégal mooy commune bi gën a rëy ci Sénégal di département bi gën a rëy ci kon Sëriñ Tuubaa ak ñaanam nangu na Cheikh Mamadou Moustapha ñëw ànd ak taxawaay bu bët sëkk ci lam njëkk a def mooy raay bi xam ngeen gàllankoor yi ca yi ca doon xew ndax tubaab bi dañuy waxoon ne nañ ko ko may taxañ ko ko nañ ko may autorisation bi ndax bëgguñ ni ni suñ diggee sëñ bi dëgër woon continuer dëgër ndax ñi ngi tàmbalee maslaa waaye nag nañ ko ci tegal condition yoo xam ne du ko attan waaye moom itam. mu wóor ko ne la Cheikh Ibrahima Faty waxoon rek néew ma xaw néew ma xaw ma sàng de waaye xamu leen Sëñ Tuubaa yéen itam ndax Sëñ Tuubaa du santaani mukk lu am te du ma sant mukk lu ma def mu ànd caako dogo junni junni ak juróom téeméer li jël xam ngeen nam demee la ci ñëpp def Cheikh Ibrahima joxoon na lépp juróomi téeméer nit ak mboolem kilifa yoon yëpp ñu gas raay bi diir bañ leen joxoon ak condition yi leen joxoon yëpp ñu matal ko. liggéey ko ci lu gën a néew fuuf diir ba ba contrat bi amoon te contrat bi bokkoon na ca mooy bu ñu àggee ca date ba te àggut da nga di perte lépp mu góorgóorlu pësteef ak dogu jama boo jamono boobu yoonu boobu yoonu ndax doole yoon yëpp mbay la woon mu mu mu mu indi tool àllarba yi gor ay yaat daar ndax yi mag fu ne ca woon ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi ànd ko ñoom ba tàmbali jumaa ji ba fondation ko ba mu yëkkati ko mu door fee bàyyi ko ci jamono ji naqari jaar bi déclaré 14 18 xam ngeen ñee ci xew diggam ak tëlëre day lu gudd waaye doggagum ci amoon ak ndam la ko ci Sëriñ Tuubaa defal ndax daa wax ne bu ma dëree sama ta sama benn tànk rek te kama daa far far ma loo bëgg dinaa ko am rawat na ma tegee sama ñaar tànk ku ko bëgg a daaneel te kama daa far far ma ba ba amee ca tribunal ba ca kaw la mu àndoon nag maam Cheikh Anta ak sëñ Modou Moussa Fall ak sëñ Massamba ba mu duggee booba tribunal xam ngeen kenn du fa duggalaa duggaale baax duggee su summi kaare gi sëñ Modou Moussa Fall day waxu waaye ba mu agsee tubaab bi da ko leen rek laa bëgg a xam danga fay wala doo fay suñ Modou Sa ne ko du ma fay ndax tooñu ma bu fekkee nguuru France dama bëgg a daan nag na wax waxante ñoom kàddu yu diis xam ngeen nam deme ba mu fa jógee am ko ne ko tubaab bi ne ko daanaka du ko du ko du ko xupp xamal ko ne ko boo defut li ma bëgg dinaa dal sa kaw ba mu génnee nit ne ko ah, tubaab bi de ni mu waxee yow xaw ma dégg ko baax am xam nga fi ñu jaar ak sëñ bi da ëmp na ci la ko suñ Modou Moussa tontoo lii ñu teg ci ay fan de guerre mondiale dekk euh, daal ñu déclaré guerre mondiale bi télé bi ñu faat ko fatal ko mu dee yëf dossier bu jeex kon mooy mbir bu suñ Tuubaa suñ li koy xeexal dafa taxoon moom Cheikh Mouhamadou Fadi Mbacké ñëw fa Cheikh Mouhamadou Moustapha tàmbale mooyee fa jëm ci kaw def yitteem jëpp muy jumaa ji boo li ma la wax yoon yi neexagut lam njëkkee def mooy gor ay tool ngir mën a àjjalu jumaa ji ànd ko Cheikh Seck taalibe yi tubaab yi tubaab ko ci la bokk sonn ci lool booba àgg na ci fii ñu toll nawet bu àggsee liggéey jumaa ji day taxaw ndax nit ñi amatuñu amatuñu luñ ci joxe noonu lay liggéey jumaa ji waaye seen jom ak seen positif néegu tabax sax nungu ko am néegu ñax ci dëkk jumaa ji àgg loo wax ma ne balaa kenn tabax na liggéey suñ tubaab bi àgg ubbi dëkk bi ci la yoon bu màggee nag tasaaroo ci bitti ba àgg Côte d'Ivoire ubbi yoon wi woote màggal gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa da ko woote woon ci njëriñ ne bu àggsee na ko ñépp sant la yàlla. ginnaaw bi tam Cheikh Mamadou Moustapha wéyale ko na ko sëñ bi defoon bi Cheikh Mamadou Faye di Mbàkke ci la ko woote fii ci Touba mu tolloog nawaytu shukrahu la daa daari salaam waa indi Touba ya bi gis min xilaam nawaytu shukrahu bi fardin wa sunan indahuma wa hinda daari minan kon ñoom ci loolu lañ ne ci la nekk ba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ñëw Cheikh Modou Fadil xam ngeen ne moo fi indi tëli yeeg courant beeg yépp ci xilaafam la ñëwee ci la dëkk bi door a doon ab dëkk dëkku jëkk village bu tuuti la woon ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëwee nag nosaat yoon wi indi daayira Sëriñ indi kër boole ci raxas dëkk bi ba dëkk bi mel ni mu mel. mooy lii Cheikh Mouhamadou Mountakha dénk jabaru Cheikh Ibrahima tey ndax Serigne Touba dafa taalif xasida mat la foofu sëñ ba ko ba itam lu xoot la loo xam ne neexatu wax ci rajo waaye lu mu déggoog Serigne Touba la ñoom du ma tëddaat ci village ci li Serigne Touba bëgg amut sama bakkan laa ci dëkk mooy lii Serigne bi di sàmbura jabaru Cheikh Ibrahima tey. muy suñu am di ñu ko ci ñaanal bu baax mu yàgg koo taxawee sëriñ bi ko ci sant ndax man la foo sëy ni sëriñ Tuubaa da ko taalif wax ni wax ni dëkk ni mu bëgg dëkk mel ni kon lool rek dañ jug ñoom di ko sàmm dolliwu ci dara teere sëñ bi daal waxul yooye képp la Cheikh Mamadou Mountakha di terewaat lañ ci yeesal rek mooy wàllu politique ak wàllu futbal bi ndax loolu itam boo melagul ni ci jamono moo tax sëriñ bi wax ne na mu ko teree woon dëmb ñu ngi koy yeesalaat ndax xam ngeen yàqul dara firnde ji mooy bi ñu àggee ci élection yi nit ñëpp kenn ku ci ne jug nga wate ji seet ka la neex nga wateel ko ca na nga ko bëggee te yàqul dara waaye nag politique bi li mu doon yàq ci dëkk bi nag mbir mu àdduna jëru ko ndax day jaxase xol yi te politique jëru loolu leen boole li ñu boole mooy Sëriñ Tuubaa li ci def lu jaar di jàll la rek li ñu boole mooy Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ji ñu boole nag bu kenn koy dee xool moroom ci sa jëmm dana danañ xam ne ñaari politiciens yu juyoo jër jër di mere kenn wala ku gàttum xel koy def bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëwee dajale yoon wi dajale seex si dajale kër Sëriñ Tuubaa yi nosaat yoon wi ba la mu waxoon ne yoon wi de danaa ko nos ba teg ko ci yoon wax néew du fa jóge waaye du gaaw kon ñoom kenn ku ci ne lay sa ndax buñ liggéey ci di ko wax jataay ko maye bi ñu fi bàyyi ko Cheikh Abdoul Khadim Mbacké ñëw wuutu ko ca liggéey ba ñoom ñaar dafa ànd si si bi ñu ko yëgee ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bàyyi ko na fi dafa wax ne maag Sèye Diouf gopp ak ëllëg lañu kon ñoom ñaar seen liggéey defaan na Sèye laa daal wax ne ba ñu Sëñ Tuubaa di boole daa dàq seytaane boobu doo ñëw boole. mu bàyyi ko fi sëriñ Saliou Mbacke ñëw bi dikkee itam fañ fañ fekkoon liggéey bi mu yokk ko gis ngeen li def ci jumaa ji kër Sëriñ Tuubaa yi bari ci dëkk bi yokkaat dëkk bi itam ba dëkk bi bu doon benn mu yokk ba mat ñett lotissement yëpp te nanguwul ko ko jaay daa ko topp di ko yokk di ko saytu ak titre foncier bi nga xam ne yàlla defe nag ci biir ak xilaafaam la ko suñu borom dogale ak liggéey yu bari muy lu mel ne te xel koom bi mu fi bàyyi ko mën na fukki daara